قلت لمن لله قد لجأ ربي بما يزرع الأذان قد فجأ بجاء يبدأ لمن لله قد لجأ حمد ربي الكريم شريك له bàyyam bàyyi ma ngi bàyyoon ci biir Moustapha mi mooy xatam kii mooy kilifa ma ngi moom moom bokk na ak bàyyi Cheikh Alassane Sène bu ñëwee diggam ak ñoom ñu ñëpp xam na ko waaye léegi wàcc mu ñëw ci bés bu dee li des lépp dañ ko lijjanti mu du xamante ne yow fekk na fa rek kan kan ñu man nga fi fekk نجد جل أعواما لكرمني تقريم هاد وكل من لخن بريا رغمان هب للجميع الخلق رحمة من يقني أني سر من قرآن خراب هدمة المصطفى عن كل مفسدة وترخم الخلق من جد أم بدأ يا مالك الملك يا من جل الخوادر ارحم جميع الورى يا ديان بدا يا مالك الملك يا من جل خوادل ارحم جميع الورى يا ديان بدا بابا كر انا مالك مالك ما تما خلنا القلب من درر بالجاي امر لمن لله خد لجنا ما هود ما خدنا والخلب من درر بجاي افضل من لله خد لجأ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 nanu toog ñu ñaan rek ngir jëmmi Serigne Touba ne ñëpp toog mooy ndigal li Serigne bi ci boppam daa toog nanu toog ñun ñëpp. nanu toog nanu toog te déglu. ñu ñu ngi sant yàlla bu baax. di julli ci Seydina Muhammad. xam naa ni jotaay bi du yàgg. <laughs> waaye dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaan ki tax ñu daje fi ñu ñëpp sunu borom jéggal ko sunu borom yërëm ko kii ñu àndal ñëw muy Cheikh Alassane Sène muy jëmm joo xam ni barki démb la nu fi jaar jëm daarul muxti Moustapha Mbaye mii ñuy ñaanal tey ñu gën koo xam ci mbay sappar sappar yaakaar naa ni tey ku ko yee ñu ni ko ñu ngi ci sa ëtt di la ñaanal du ko gëm tey ku ñu waxoon ni danañu del siwaat Tuubaa du ñu ko gëm waaye sunu boroom mooy faalul li yu yurit lu ko soob rek lay def ah Cheikh Mouhamadul Moutada mu Serigne Fallou ñu may ko mu ñëw nanu dal nanu dal ñu dalal Cheikh Moutada Juma. Mour baal ma si nga wax la nga wax dëgg waaw. waaw Touba ba bu dee déedéet sëñ Mour laa day kilifa la sëñ Mour laa day ko. waaye xam ne waaye bu ñëwee nga wax nga dal nga wax li nga bëgg a wax. waaw bu waxee ne. satub sëñ waa na dëgg. sëñ Fallou leen defal lépp. lépp laa lépp sëñ Fallou leen ko defal. nee moo tax génnuñ ko. waaye mba bu noppee ñu continue la ñu bàyyi sëriñ bi ñu àggale bu ñu noppee ñu teewlu. Cheikh Alassane Sène. sëñ bi lalal gi. nee na di wax li ma wax rek. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan yàlla ne mbay mi fi bàyyi ko di Moustapha nee ñu nekk ci weeru Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nee yàlla tabbi ci yërmande sunu borom. bi may jóge fii bërki démb. ci Daarul Muxti. bi ngay dugg bi. ne bi dugg ci oto bi. la wax ñu wool moom Moustapha moom. la ko Moustapha Mbaye ak Medoune mi toog. ñoom la mujje waxanteel. laata muy taal otoom di dëpp wuti Ndakaaru. waxanteeg ñoom ci gàmmu gi. saafonteeg ñoom. ndax seen taxawaay. ci ay mbiru Cheikh. nekkate bis boobu. nekkate boobu. mooy sunu mujjeelu gise ma sant nag sunu borom bu baax. ci ay defam. di ko sant bu wer ci jotaay bi ñu am. ak ni mu mel. kaddu yi nag du yàgg. dama ñëwoon joxe sama njaal. ne daa ñëwoon joxe njaalam. ne fekk fi Serigne Modou. nangul na ma ko. ne nangul na ko ko. ñaanal nañu Moustapha. ne ñaanal nañu Moustapha. laaj na aussi doom doomam yi mu am. ne laaj na aussi doomam yi mu am. ba laaj ñiy jàngi école. ci ñoom laaj ñiy jàng école ci ñoom. ma ma ma fas yéene. mu fas yéene. xale yi jàngi école. xale école. dana continuer. di leen jël en charge. di leen jël nag en charge. ndax kat. njaboot gii mu fi bay. njaboot gii njaboot la. ne wax na ko sëñ Modou Mbacke mii. nee dana jël matukaay yi. nee dana jël matukaay mm-hmm. wax ko ñan la. ak lan mooy seeni soxla. ak lan mooy seeni soxla. man tamit danaa ci taxaw. te duma ci xaddiit. nee du nekk itam waxi ngistal. déedéet. lu mu mënul moom. nee du ma ko jéem te kenn xamewuma moom waaye lii moom farata la. lenn rek lay ñaan. nee man mii toog. saa su ne. saa su ne. nga ko ci sama nopp. naa ko dëkkal nag ci noppam. ndax activité yu xaw a bëri. ndax activité yu xaw a bëri. yenn saa yi du nekk ci réew mi. waaye su fi nekkul. xam naa bunt bi may laal. ngir loolu. saa su ne. nu ma tal ko. nee sëriñ bi sant naa la. nee sant naa njaboot gi. maa ngi leen di masaw. maa ngi leen di masaw. ñu ñaan yàlla rek. ñu ñaan yàlla mu tabbi ci yërmande ak weer wu tedd wii ñu nekk muy weeru Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te Cheikh Ahmadou Bamba. dafa wax baat boo xamante ni. ne daa wax baat boo xamante ni. wax naa ko keroog. ne wax na ko keroog. إذا كتبت تسعى عرش الله إذا كتبت اعتسى العرش الباخي wa sabaxat malaayikatu tibaqi nee baat boobu. même su fekkee ne dégguloo arab. nee même su fekkee ne dégguloo arab. soo ko waxee. soo ko waxee. da ngay xool ni sa yaram di yëngoo. nee da xool ni sa sa yaram di yëngoo. soo déggee arab. baat bi mi ngi mi ngi firi ni moom moom Cheikh Ahmadou Bamba yooyu mu bind di xasaay di nee na mu jëmle ko ci sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waay waay ne fa mu yëngal foofu ca borom ba loolu rek moo gënal boromam yàlla Cheikh Ahmad Bamba moo ñu waxaat. ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ñu waxaat. ne ñu su dee da ngaa bëgg xam dëgg-dëgg yonent bi. ne bu fekkee ni da ngaa bëgg a xam dëgg-dëgg yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. jàngal suuratu naj mi. nee nga jàng suuratu naj mi. aaya benn. aaya benn. ba fukk. ak juróom-ñett. laqad raa min ayati rabbil kubra. laqad raa min ayati rabbil kubra. foofu nag. foofu nag. sunu borom. wan na yonent bi wan na Seydina Muhammad ay kéemtaanam ne Moustapha mbay tabbi ca loolee ne yal na loolu wallu ko Serigne Modou Cheikh bi ne sant nañu la bu wér nag ñi ngi fasanteeg yow wóllëre ne gis nañu ni nga téewee njaboot gi ak bi nga fi toogee ak léegi kenn ku fi ne ci ñoom wax na sa taxawaay ci yow su la neexoon da ngay ñëw jaale rek da ngay ñëw jaale dem waaye da ngaa toog waaye da ngaa toog wane ni mbir mi kat sa mbira yal na yàlla fay la ne jéego yëpp ne ci barke sa maam Seexul Xadim ne si barke sa maam ne Seydina Muhammad bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ne alxaqu min rabbikum ne fa man chaa falyumin ne wa man chaa falyakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu déglu sëriñ bi mu yëkkati kaddu sëriñ Modou cheikh bi li nga def nag rëy lool ndax ku xamul Cheikh Alassane Sène ci réew mii dégg nga ko ku ñàkk jot nga boo nee bërit la ma la wax ci Daaru Muxti barki dem rek kër yi diine yëpp kër goo fi dem am nga fa wàccuwaay loolu nag li la ko may bi la yàlla defalee nga jàng sam njàng ba noppi ki nga bëgg moo yilif kër yëpp muy Seydina Muhammad lu baax rek nga ngay ngay dox du Mbuub mu baax mi nga xam ne sunu nawleel liñ ko waxee léegi xam nga ni lii nga def wane nga ni Moustapha de ànd na maa moom waaye gunge naa ko te am nga ndaw am nga ngant ndax ku bëgg yonent bi ban ni teel a juróom-ñetti fan ñaari fan a des ci anniversaire yonent bi ci ku mel ni yow nga xam ne bu dul gàmmut amoo jot xat na ci yow lool waa xam nga ne bis bii képp lees si ànd ak nit gunge ko muy bisam bu mujj kon seex bi boo jugee Ndakaaru ñëw sa téléphone démb nga yendoo woote Modou mi daanaka maa ngi moom soriwul ci yëf yi man bin ma woo wax ma ko man démb ba léegi tey laa ma nekk benn kàddu ndax télévision yi dañ maa man leen jéggal leen ma rek ku ne benn télé rek laa wax muy 2STV ndax lu bari dama ko ca fekk kon Cheikh Alassane ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla sàmm Cheikh Alassane Sène li ma gën a yéem sa ñëw gi la ma la waxoon daara ma ci barki dem Serigne Moustapha Absatou Diakhaté yow laa mas a gis ci ku mas a recevoir ci ëttu boppam ba fii nag ku ne ñëw na fi dinaa la seeral ne la nag Moustapha ay soppeem daanaka ñi ñi ci bitim réew ëpp ndax lim yoroon ñëpp ko amun yitti di ko xool waaye euh, Moustapha Senior mais di doomi président Cissé Lo sama yaram daw na ci moom ndax Moustapha ñim am bari nan waaye moom mais dañuy ànd tool yi sëñ foo mu toog léegi mu am fa juróom benn wax te fii dafa tàng te mu doon nit ku nit ku am pas-pas jóge Dakar li nga def bàyyi woo ko xel waaye man bàyyi naa ko xel ndax bis bi damaa ñor démb laa fi ñëw soxna moom i képp yónni mi lu mën a def bis bépp kon si Alassane Sène li ñuy tëj rek mooy ci bëj di ñaanal jëmm ji nga xam ne mooy sëriñam gunge na ko fa gunge mën a yem dem na ca bari ba toog na fi ñeenti wax ci baas bi kon Cheikh Alassane Sène kóllëre gi nga continuer ku ne mën koo yóbbaale dee sa ànd ak nit ba mu dem nga continuer say téléphone wala nga ñëw fu maslaa dem waaye li nga def mooy jàpp nit mooy colère engagement nga jël engagement yi li la ko jëloo xam nga ndaw nga àndaloon dem gi métti waaye ndaw dafa dem bàyyi njaboot ñu war taxu njabootam nga ni dinaa taxaw ay doom Cheikh Alassane yàlla bu la dara dog yàlla na ngaa gënu yoon li nga ci kër diini yàlla na ko yàlla defal yaa jaraandal yaa mat kóllëre yaa ma tàndal yàlla na ngaa gën a yoon sama xol sedd na baax loolu rek laa doon wax. Eh, jërëjëf Alaaji Magam ji nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatoo. ne ginnaaw bu nu sante yàlla. sant Serigne Touba. ne sant Cheikh Mamadou Fadal. ne sant sunu ñaari waajur. ne sëñ Alsaan. ñoo ngi lay delloo siyaar bu baax. bég nañ lool. nee di la xamal ne bokk yëpp bég nañu. nee nga sa biiri wax. nee nga sa biiri wax. Moustapha mbay Moustapha Mbaye. daaru Mouti ngeen mujj bi daaru Mouti ngeen mujj ànd. nga wax ne yaa ko bëggal sa bopp. nga wax ni Moustapha yaa ko bëggal sa bopp. loolu nag. loolu nag. amul lenn luñ ci napp. lenn lenn lenn ci napp. ndax benn. ndax benn. magam jëmm nga. yow magam jëmm nga. te yàlla seetaanu la. te yàlla seetaanu la. yàlla teral na la. ni mu tërale ñëpp ñaareel ba man boo nee sëñ Touba man boo nee sëñ Touba rek xooluma ci yow dara. lii nga def nag lii nga def nag. famille bépp bég nañ ci famille bépp bég nañ ci. ñaareel ba ñaareel bi. li nga wax ni da nga ko def ci njaboot li nga wax ni da nga def ci njaboot gi. ñu ngi ñaan ci barke Serigne. ñu ngi ñaan ci barke Cheikhul Khadim. barke yonente bi barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla dooleel la ci. ndax wax nga ni. ndax wax nga ni. du toujours yaa ngi Sénégal du toujours yaa ngi Sénégal. boo fi newul waaye boo fi nekkul. sëriñ bii muudu mbuub mu baax mii. baax mii di kenn ci yow. kenn ci yow di kenn ci yow. su la bëggee jot mais su bëggee jot. dana la mën jot dana la mën a jot. Moustapha Mbaye nag. te Moustapha Mbaye. sama rakk la ñoo bokk ndey. mais sama rakk la bokk ndey ak baay. kon du ma mat seede ci moom kon du ma mat seede ci moom. waaye ku baax la. waaye Moustapha ku baax la. as la as gor la. ab julit la ab julit la. bañkat la bañkat la. nangu naa liggéey kon nag ginnaaw yow ci yow la mujj def vidéo. ginnaaw ci yow la àndal def yow vidéo. te boo yable woon rek mu doy. te boo yabaloon Moodu Mbay mi rek Moodu Mbuub rek mu doy. rek mu doy. Moodu mbokk boo ko yabaloon rek mu doy. nga déplacé wu ñëw. nee nga déplacé ñëw. gàmm gi di ginnaaw suba. gàmm gi di ginnaaw suba. ngay jëwriñu yonente bi ngay jëwriñu yonente bi. ne jàkk jot lool. kon kàddu yi nga wax. gëm la lu ñu gëm la. lu ñu wóolu la lu ñu wóolu la. ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuuba amuñ mi nga xam ne amuñ lu dul moom ak barke sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom jublu yonent li nga mébéti Moussa Mbaye yébét ko njaboot gi ne yàlla na ko yàggale sunu xol sedd barke sëñ Fallou famille bépp seen xol sedd na jërë ne sëñ Alsaan Seen góor yalla ñu ngi lay nuyu ne di la jot lim nuyoo diggante jullit ak mborom ja ne di la ñaanal jàmm bërëb bii nga ñëw nee bërëb bii nga ñëw. bërëbu Sëñ Fallu la. bërëbu Cheikh Mouhamadul Fadal la. yàlla dogal maamam. nee yàlla dogal na maami Moustapha mii. léppam Sëriñ Fallilu la. nee waajuram. sëñ Aafiya Mbay. nee noonu. nee yàlla dogal na waajuram sëñ Aafe. sama waajur la àndaloon man mi ba fi jógee mu jokk ci man. nee ak njabootam. nee ak njabootam. dafa jël ci biir kër sëñ Fallou. ñu nekk. ñu nekk. mu am ñu leen séddee. ku nekk mu am kum la séddee. am ñu ma séddee man mii. nee na am na ñu ma séddee. seen taawu baay tey man la nekkal. seen la nekkal. ci man la nekk. nee xaadim mbay mii nga xam ñoo bokk ndey baay. mu yëngu ci xasaay di. ne bokk ak alaaji baay alaaji seen mag. yàlla dogal na baayam sëriñ Afe. baayam sëriñ Afe. da ko séddee woon sama mag. da sedde séddee woon sama mag. sëriñ Abdou. sëriñ Abdou. mu doon sëriñam. nee sëriñ Abdou di sëriñam. sëriñ Abdou am ngant. sëriñ am ngant. ma taxawal ko foofu. ma taxawal ko. akub taawam sëñ Saliou ma nga nee toog. akub taawam sëñ Saliou Mbacke ma nga nee toog. loolu moo tax. ne loolu moo tax. nga fekk ñu ci barab bi nga fekk ñu ci barab bi barab bi barabu sëñ Fallou. barab bi barabu sëñ Fallou. ñu fi dikkee dikkaloo fi njabootu Ablaye Mbaye. ne dikkaloo fi njabootu Ablaye Mbaye. la sëñ Cheikh Oumy wax fii léegi. la sëñ mooy dëgg. ne loolee mooy dëgg. dafa am dataay yoo xam ne. dafa am dataay yoo xam ne. xajul ci jotaay bi xajul ci jotaay bi waaye kër sëñ Fallu waa kër sëñ Fallu nga fi dikkal nga fi dikkal ndax fekk nga fi ñaar ñaari doomi sëñ Fallu fekk nga fi ñaari doomi sëriñ Fallu mais sëñ Murtalaam sëñ Fallu moo taxawoon noonu daam ngant wàccut li nga def sëñ Fallu nga ko defal tayit nag tayit nag euh, kóllëre dafa am solo ci nit dafa am solo ci nit dafa mel ni dafa mel ni lii nga def lii nga def yëfi dégg aaya bala yëfi dégg aaya bala da ngaa dégg aaya ba. appliqué ko moo tax def li nga def. ndax ku ne xam na ni jot amul. boo jógee Ndakaaru ngir Moustapha. loolu. kóllëre la goo xam ni. li ci saa borom digle. ci matal kóllëre yow xam nga ko. kon yàlla na saa borom fay. fedd li kóol rek. ni ko engagé nii. ni nga ko engagé nii. dëgg la si yow. dëgg la si yow. ndax yow borom xam-xam nga. am na loo xam dara jërëjëf. ci réew mi nga dëkk. kon boo ko waxee. daanañ ko jàpp. jàpp nañ ko bu wér. nangul nañ ko bu wér. nangul nañ cant gi na la wóor daal. cant gi na nga la wóor naa ni. sunu làmmiñ dafay dafay lot. sunu làmmiñ dafay lot. ndax nit dana am cant. ndax nit dana am cant. te làmmiñam lot ci man na ko tuddee. te làmmiñam lot ci a tuddee. ndax li nekk ci xol lépp. ndax li na koo bañ a tudd. waaye li ñu lay daal fi muy tàmbalee xam nañ ko. fi muy tàmbalee xam ndax jëfit. bu amul bu amee bu amee fu mu tàmbalee. am fu am amul fu mu yem. te amul fu mu yem. cant bu amee fu mu ta cant bu am fu mu tàmbalee. du am fu mu yem. du am fu mu yem. ndax jëf ji nga jëf am na fu mu tàmbalee. ndax jëf ji nga jëf am na fu mu tàmbalee. amul yemukaay waaye amul yemukaay. yemukaay bi mooy ni nga ko toftale ci njabootam. yemukaay ni nga ko toftale ci njabootam. loolu muy ñàkk am yemukaay. loolu moo moo tax amul amul yemukaay. loolu moom ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm yéen a jooju mu amoon ci yow ni gàmm gi yow la bëgg gàmmu si ni gàmm gi la bëgg a gàmmu si te lu rëy rëy la loolu lu rëy rëy la dogal bi dal ci moom dogal bii dal ci moom ba mu génn këram démb ba mu génn këram démb xamutoon ni xamutoon ni du del si këram du del si këram kon lii ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel kon lii ñun ñëpp war ko kenn ku nekk boo xëyee sa kenn ku nekk boo géyee sa kër man nga faa bañ a dellu boo tëddee boo tëddee mën ngaa bañ a yeewu mën ngaa bañ a yeewu sëñ Fallu waxoon la sëñ Fallu waxoon tey tey nañ jàpp ne tey moom nañ jàpp ne tey moom li fi nekk li fi nekk ko jagal nañ ko jagal sëñ Bas mas naa wax ma ngi ngeen di xaar dee. sëñ Bas mas naa wax ni ma sëñ bu mag bi mas na wax ni. nu ngeen di xaare faatu. nu xaare faatu. bu ma xëyee du jant du ma soo. ñii naan bu ma xëyee jant du ma soo. bu ma tëddee du naan bu ma tëddee du ma yeewu. mun leen déedéet mun leen déedéet. da jàpp ni boo nooyee. da ngay jàpp ni boo nooyee. bu nooyi gi génnee du del si. xam nga diggante bu xat la. loolu diggante bu xat la. ko jàpp rek da nga da li ngay def baax si ku ndax diggante bu xat a xat la. te suñu borom fi ne yërmande jëpp ci doomu te suñu borom yërmande jëpp ci doomu aadama la ko def. damaa waxoon sànq ci barab ya. damaa ci barab ya. ni leen denc Moustapha teew ci mbooloo. ni leen ci teew ci mbooloo. ñàkkut saa borom ci kenn koo xam ne. ñàkkut saa borom def ci kenn koo xam ne. képp kum teew ci mbir képp kum teew ci sa mbir nekkoon ci bàkkaar yàlla jéggal ndax la fa nekkoon ci mbooloo borom cër moo tax ñu am ci moom yaakaar te waajuram ay taalibe lañ ba waajuram bu jigéen bi toog ak waajuram bu góor ak waajuram bu góor ñoom ñëpp ay taalibe lañ moom itam moom la ay ñii ñëpp na la defal joo xam ni kawe sa njort yu kawe sant nañ la baax sant nañ la baax sant guddi kero ab reer bu baax la mën dil nee na da seereel loolu ne lu ko yàlla ma sa war a dëgg ne bokk na koog man ñoom ñëpp a ci yam sax waaye Moustapha ku ma yërëm la ku ma dimbali la nee na njàkkum ndox bi mu amee daa root andil ma nee na maa ngi ñaan ci doori sëñ Fallou lépp lépp lu koy jaaxal bum ko gis jërëjëf jërëjëf jërëjëf eh, wuy ma Cheikh te ñun ñim fi bàyyi nee na saa borom defal nu taw feex nee na ñu nekk ci lu neex suñu borom ne barab bi ñu ñëwit ne tuyaaba ji ñu fiy def saa borom ne fay nu ko ne Cheikh Alassane mi ne saa borom moom itam sàmm ko te fay ko li mu def ne ci yërmandeem jërë ngeen jëf ñu tàllal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 ولا يهمدها وما أنزل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي أعطى مطلع لا عذاب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فلم تخلق من شر ما خلق ومن شر فاتت من خلق ومن شر نفاثات في الخلق ومن شر هلكة من رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق كما سبق ناس الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره الحسن